su fekkee docteur Ahmed Lo la ma waxoon ci moom daaw ku ma ko laa leen ren ji lu ko raw lay wax eh, ma bàyyee loo foofu xel tuuti réew mi léeg nga wax dëgg ñuy wër lan moo tax nga wax dëgg te du ñu gis ne dëgg la rek danga nga ko war a wax alxaqu min rabbik la danga ko war a wax ñenn ñi seeni gis-gis mën nañ ne mën naa moo ko jàngal wala li ni mel docteur jàngalu ma tey jii su ma toogoon ci kanamam di ngeen gis mu ne leen carrément kii jàngalu ma ko dama dëkk ci réew mi jàngee fii ci réew mi ci këru diine yi ci kër gi ci réew mi jàngee ci borom xam-xam yi yàlla baaxe ñu ñu bokk ci ñi nga xam ne gëstu nañ ci këru diine yi ci réew mi yëpp comme ni ñu ko mën a tuddee nga xam ne kër gu ci nekk mën nañ toog la mag ma bind ñu toog ak ñoom di ci waxtaan ak ñoom yaakaar naa ñu bari xam nañ ñu ci te mën naa wax ne man suñu amee rasumaal mooy suñu xam-xam wàll gu nekk ña nga xam ne ñoom ñoo bëgg mu jëm kanam ñoom ñu ngi koy valoriser pour mu jëm kanam te valoriser ko mooy ña ca gën a fës nga jox leen gëdd kon ci wàllu xam-xam tey jii ku ñu ci laaj dañ cay wax euh, docteur Ahmad Lo euh, benn laa bëgg ñëpp bàyyee ko xel li ma gën a yéem ci moom mooy al adab yar gi ci moom adabu salaf yar képp koo xamante ne jàng nga maanaam histoire u salaf yi maanaam mag ñu baax ñi suñu waxee salaf rek léeg-léeg ñenn ñi bëgg ko féetale fenn kese mag ñu bax ñi ci sahaba ya ci tabi'in ya tabi'u tabi'in ya ba ñëw ci suñu mag ñi ci rew mi xolale yar gi nekkon ci ñom yar ci walu waxin yar ci walu doxalin yar ci walu lépp kan ci rew mi moko mësa dégg muy wax ci vidéo wax ju ñaaw jëmele ko ci kenn ci rew mi wala waxin bo xamne waxinu histoire la wala violence wala liko niru te lu nekk ndaw ay xale yu ndaw yo xamne xamuñu dara fu nekk lañuy taxaw wax lu nekk way do ko dégg mu wax dara day ne tekk tekkaaral xoolal yar ñaarel ba moy liñu ñu hubbu watanihi moy bëgg réewam kan mo mësa gis ci yéen mom mu tok fenn ci aduna bi mo na day représenter réewam fep ci aduna bi ci réewu islam yëpp mu tok fa teewal fa Sénégal waye la ci gëna réew mu teewal fa nit ku ñuul kan moko mësa gis ci benn vidéo mu tok fa di xass réewam ne Sénégal de bokal rek lañ fi nekkee Sénégal li rek lañ fi nekkee Sénégal li rek lañ fi nekkee da ngay gis ne même problème yu bari bari wala fatawa yi muy def wala yi nga xamné xam-xam war na ci wax da ngay gis mom du bëgg sax sori ci arab waxtaanu biir kër la koy def wallahi la la wax nañu top dem leen ci internet bi sax ngeen xol vidéo yi da ngay gis wol da koy wolofal wolof bu leer nañ ñëpp dégg ko nga xamne melni kuy waxtaan ak ay njabotam ci biir nit xawma nañu taxaw setlu gis nga nit ak lo bañ-bañ li asaman la nel asaman la waaw xolal bobé bobé lolu ci bëgg réewam ak activité yi muy def pour ñëpp am xam-xam ñettel ba moy liñ tuddé ghazaratul ilm gazaratu ilmihi ci walu xam xam-xam waxoon naa ko daaw ku ko yab ci leneen nga ko mën a yabe waaye du ci xam-xam waaw du ci xam-xam tey ji xam nga li ñu waroon ñu fexe naxante ak moom ba mbind ya nga xam ne moom lay def fële ca kulliya ba mooy bidaaya beeg li ni mel ñu andil ñu ko ci aw télé ñëpp di ko suivre ñëpp mën a jëriñu ci xam-xamam muy def ay muy yoo xamante ne mubashara lay nekk ñëpp di mën a woote di jëriñu ci li nga xam ne moom mooy xam-xamam tey jii ñun suñ ci jëriñut yeneen réew ñu ngi jëriñu ci xam-xamam adduna gi ñu ngi jariñu ci xam-xamam kon nit danga koy nangul adduna gépp mënuñoo taxaw nangul ko xam-xamam lijaasa ya ca war mu am ko ñoom ñëpp ñu nangu ko boole ko ci borom xam-xam yu gën a mag ci àdduna bi kon tey jii te soo waxee ne lii nekku fa itam yow yaay wax lu la neex ñeenteel ba mooy wàccee boppam ba ca nekk loolu képp ku ko fekk këram wala fekk ko ci bërëb bu jàngalekaay bi wala fekk ko ci jotaay yi wàccee boppam boobee nga xamante ne bu yéeme la nga xamante ne ci mag ñu baax ña rek lañu ko doon jàngee xoolal euh, bokk na ca ba nga xamante ne juróomeel ba mooy li ñu tuddee kasaratul bukaa lil quran soo commencé jàng alquran ci kanamam tuuti rek nga gis mu bënn bët ay jooy rom muy rongoñal kon loolu noonu mbokk yi nanu nanu nanu ragal yàlla nanu ragal yàlla tuuti waaw borom xam-xam buur bi subhanahu wa taala moo ko fonkal boppam yàlla moom moo ko fonkal boppam nañu fonk sunuy borom xam-xam bu ñu nangu mukk kenn di ñu xébal sunuy borom xam-xam te da ngay gis sax fi may tejé ci lu bari ci ay vidéo day joxe ex suy joxe exemple ci walu jàngale ci walu doxalinu mag ñi da ngay gis même ci walu ciolu ciolu day ñëw xamal la carrément ne mag ñi maam Seydi Hadji malik ni la doon solo maam Serigne Touba ni la doon solo mu jox la mag ñi nii lañ doon solo kon surtout ndaw yi nañu teey bu len kenn jëfëndiko ngir dalal len ci ay musiba borom xam-xam yàlla buur bi subhanahu wa taala mo len fonkal bopam te yàlla mo len aral bopam bu kenn duggal ci lenn bu leen kenn duggal ci lenn xam-xam moom moo di seen dàll la fu ngeen ko fekkee na ngeen ko jël seen dàll la mooy xam-xam maanaam li nga xamante ne moom ngeen soxla li ngeen di wër na nekk xam-xam fu ngeen ko fekkee na ngeen ko jël te dafa am lu ñu tuddee baabu tawqiril ulama ci riyadu salihin kon nañu def ndànk nañu def ndànk waaw lii may wax man Cheikh Omar ci réew mi fii laa jàngi xam ko waaw ci réew mi fii laa jàngi xam ko ku ma ko tàllal micro guddi bëccëg dama koy wax kon nañu def ndànk te ragal yàlla نيو راغال يالا بور بي سبحانه وتعالى نيو راغال بروم بي سبحانه وتعالى